groupe académia tasawuf ñu leen di nuyu bu baax te di leen siyaar lu bari di siyaar kilifa yu ne ci groupe bi yëpp ak boroom xam-xam yëpp di fas yéene del siwaat ak yéen rek insha allahu taala ci ni ñu ko baaxoo amale ci altine ji jot ci téereb Sëriñ Tuubaa bi ñuy wax Masaalikul Jinaan ñu ciy jël ay darsu di ko jéem leeral ci suñu kem kàttan ñu tolloon ci diggante bi sëriñ bi di waxe yi nga xam ne mënees na jee dundale waxtu ginnaaw bi ñu leeralee waxtu ni mu amee solo ak sànq waxtu ni muy juree ak rëcc ak perte nga ëllëg yomal xiyam mu xamal nag ne doomu aadama bi jullit bi war naa fexe ba waxtu mu koy chargé ci aw yiw ba nga xam ne genn farax koo xam ne day dem noonu rek du ci nekk rawatina nag mu ciy def loo xam ne ak tooñ lay nuru moon mu joxe woon ci ay misaal wane na waxtu mënees na koo dundale ci naafila ci julli mënees na koo dundale naafila ci koor mënees na ko dundale ci saraxe mënees na koo dundale ci tudd yàlla ak def see lawraat ak yu bare bari yoo xam ne mënees ko feesale ak dund yooyu nag mu jëloon ci yoo xam ne eh, yu ñu yoonal la yoo xam ne sunna la nga xam ne ku ko mën def di def dana yokk sa tuyaaba lool muy naafile yi nga xam ne moom lañ yoonal ci bala ngaa julli tisbaar ak bala ngaa julli suba ak ak yim ci limoon ci darsu bi weesu waaye lim bëgg wax rek mooy saa yoo defee say farata bu noppi li la dese ci ay waxtu yëpp mën nga koo feesal ci ay jaamu yàlla ci xeetu jaamu yàlla yëpp moo xam julli la moo xam koor la moo xam jàng alxuraan la moo xam saraxe la ak yu ni mel te bañ koo bàyyi rek muy wéy ci ak nen loolu mooy doxin waa tasawuf amal tasawuf ñoom noonu lañ gisee ak dund jàpp nañu ak dund lépp lu war a profitoo jàpp nañu itam lépp loo ci sànk rek Euh, dana doon loo xam ne looy rëccu la bu ëllëgee moo tax ñu jàpp moo tax ñu gis ne nit kii ay farataam loolu do diggam ak boromam la mooy ndigal yi ko yàlla digal mu war koo def te waru caa séntu dara lu dul jëfe na ndigalu yàlla waaye nag bu jëfee ndigalu yàlla ba noppi nag fas yéene waxtu dund gi ko yàlla may mu bañ koo bàyyi muy dem mu di ko fee feesal ci li neex yàlla loolu mooy doxin waa ahlul tasawuf looloo tax ñu naan yar nit di yar bakkanam di ko tàggat ci muy eh, nangoo jaamu yàlla ci waxtu wu ne kon bind bi ñu weesu woon eh, ñi ngi tàmbale woon ci naafila naafila yi nga xam ne mënees na cee feccale waxtu ba mu fees dal dundal ko ci ak njariñ ya nga xam ne naafila yooyu am na ko eh, mu limoon ci yu bari ñaar rakka yi ngay julli fajar bala ngaa julli ñaar rakka yi suba nafil ak yor yor ñeent raaka njëkk tisbaar ñeent raaka ginnaaw tisbaar ñeent raaka njëkk takkusaan ak ginaaw timis ñaari rak ba juroom ben ak bo juleegee lo man ci ay rak no ko def witar yoy mu limon ko limitam itam ñi nga xamne ne def na yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ko ci muy amam solo mën a jur tuyaaba yu bari ñu tàmbalee kon tay ci wa karihu sibnañ bu da subhin ginnaaw suba alkalaama wax ila tuluuxi samsi jëmba ca fenkuk jant ba xul waxal ahra rawatina almanaam nelaw mu ne ginnaaw boo jullee suba bu noppi mooy boo yewwoo ba julli suba dañoo bëgg nag diggante boobu nga toog di tudd yàlla ba keroog jant bi fenk ndax lu bari tuyaaba mooy boo jullee suba ba noppi daal ba nga xam ne julli nga sa farata bu noppi foo mën a jullee nag wala boog foo mën a toog rek nga toog di jàng alxuraan wala jël sa kuréel di tudd yàlla ba keroog muy leer nañ nga xam ne diggante boobu moom doo fi tëddaat di nelaw doo fi toog di wax waxi mbuusur ak waxi àddina wax mu ne sib nañ diggante bi nga jullee suba ak fi jant bi fenk daal sib nañ nga fiy toog di waxtaan waxtaan àddina rawatina nag nga fiy tëdd di nelaw loolu lañ gën a sibati mooy wakarihu sim nañ bu xayda subhin gannaaw suba alkalaamu wax ilaa tullu'i shamsi jëm ba ci fenku jant ba xul waxal ahraa rawatina almanaama nelaw suñu waxee ne dañ ko sib nag mooy boo ko defee bàkkaar di la ci fekk waaye nag dinga nga ñàkk tuyaaba ju bari bare bëri mooy tuyaaba ju bëri dana da ko manqué mooy da nga ñàkk ci eh, def gi nga def loolu mooy ci wax toog gi nga toog di ci waxtaan waxtaan adduna di nga ci ñàkk tuyaaba ju bëri wala tëdd gi nga tëdd nelaw ci ñàkk tuyaaba ju bëri maanaam daal ku ko man nga fexe ba soo jullee suba ba keroog jant bi fenk nga xam ne jant boobu bu fenkee ci nga war a xëy nag dem ci yitte àdduna yi diggante boobu nga toog di ko jaamu yàlla tudd yàlla jàng alxuraan salaatu ala man ba keroog jant bi fenk nga waaj nag fas yéene jëm ca barabu liggéeyukaay ba wa in tusalli ndéem da nga julli as suba fil jamaa ci mbooloo suma jalasa topp nga toog zaakiran tudd yàlla li taa ngir topp yàlla ila tulu'i shamsi jëm ba ca fenku jant ba kunta nek nga misla kem ka nga ajja ajna tamara tamu umra euh, fi saaka saman ci jojje jamono euh, lolu hadis la bo xamne yunus yonte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax bo demé ci yu dang ko fekk hadis bo xamne anas ibnu malik moko netli nettali boo xam ne julli nga suba ci mbolo gannaaw ba nga toog fa nga doon jullee di tudd yàlla ba keroog jant bi fenk eh, yaa ngi am nga tuyaabay ku aj yoolub ko aj aj makka ak yoolub ku xumra am na ci hadis boo xam ne caa dolli soo noppee nga ginnaaw ba nga julli ñaar rakk nga ñaar rakk yor yor war xam ne képp koo xam ne ngaa julli suba ci mbooloo gannaaw ba nga toog fa di tudd yàlla mooy di tudd yàlla ba keroog jant bi fenk nee na da nga ci jëlee tuyaaba ju rëy ju ne tuyaaba ji ñu jëlee ci aj makka ak tuyaaba ji ñu jëlee ci umra loolu nag tekkiwut ne soo ko defee aj nga um, aj nga màkka wala soo ko defee umra nga umra ak aj màkka euh, ay warteef lañ ci farata ak sunna yoo xam ne nit ki da ko war a joxe saa yoo xam ne sarte daje na ci moom waaye tuyaaba ji nga cay jure nag tuyaaba ji nga cay jure nag bokkut ak jëf ja moo tax ne boo defee boo defee jëf jii danga ci am tuyaaba ju toll ne tuyaaba ju ji ngay jële ci aj màkka ak ji ngay jëlee ci umra loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mais ci Tirmisi wax naa la ma nga fa hadis ba euh, Anas ibnu Malik moo ko nettali euh, fa haafis na ngay sàmmanteeg al buur ba mooy kilifa ga bi saatay nahaari nahaar ci ñaari waxtu yu bëccëg euh, kafaaga kon dana la fegal maa baynahuma la nekk seen diggante ñoom ñaar militararin ci ak lor dafa bëgg wax rek ne na ngay yàlla ci lu tambal ci waxtu suba ba keroog jant bi so ba keroog jant bi jant bi so naka noonu li kàmbalee jant bi so ba keroog jant bi fenk moy di tudd yalla ci bu jant bi fenk moy bu xey ak di tudd yalla bu jant bi so da bu wax rek ne samonté yalla sa waxtu wep motax moy mooy na ngay samonté yalla bi saatay nahar saatay nahar nak moy fi jant bi so fenke mooy su suba gi ak fi jant bi soye ñaar yëpp ngay sàmmanteeg ci waxtu nekk bu jant bi fenk fekk la nga ne ci jaamu yàlla bu jant bi so itam fekk la nga ne ci ak jaamu yàlla wa sabbihuhu bukratan wa asilan mooy na ngay sàmmanteeg eh, ñaari waxtu yooyu mu la wax eh, ba nga xam ne bu jant bi fenk dana la fekk maanaam nga ne ci ak jaamu yàlla waaye bu jant bi sooy itam dana fekk nga nekk ci ak jaamu yàlla bu ko defee itam mu doon tuyaaba joo xam ne tuyaaba ju tuyaaba la eh, mu teg ci fa xaafis euh, mu teg ci waxtalafu wuute nañ waaye dafa xam ne boo sàmmanteeg ñaari waxtu yooyu bu jant bi fenk fekk la nga ne ci jaamu yàlla bu jant bi soo fekk la nga ne la nekk ci diggante ba yàlla dana la fegal mboolem lor yi ca nekk waxtalafu wuute nañ fi naf li ci naafi la xël xël ndax tuulul mi yàggal taxawaay ba afdalu moo gën mu ne waxtalafu wuute nañ fi nafli ci naafila xan ndax tuulul xiyaam yàggal taxawaay ba afdalu moo gën aw kusru sujudihi wala barik sujudam ya almaram mooy càkkuteef la mu ne naafila nag ginnaaw bi mu waxee ne naafila mënees na ci dundal waxtu lim ci naafila yim ci yim yëpp ak wépp waxtu woo xam ne dagan naa naafila rek Euh, nga dëje naafila te yàlla rek tax ngir sàkkoo ko tuyaaba ak dundale ko waxtu nee naafila yooyu nag moo xam naafila ba yi la wala naafila guddi yi la ndax nga guddal taxawaaya maanaam jàng ca saar yu gudd gudd gudd nga xam ne ràkk bi da yàgg lool taxawaay yàgg lool nga door a sëgg ndax taxawaay yàgg yooyee moo ëpp tuyaaba wala boog di ko def saari gàtt te ràkkaaya bari mooy sujjóor yi bari ndax moo ëpp tuyaaba ndax soo dee def taxawaayu gudd euh, comme niñ koy nettalee ci kilifa yu baax yi yenn yi nga xam ne daa dañ naa fi la alxuraan ñaar rakka mooy jàng ci saar yu gudd gudd nga xam taxawaay bi day yàgg am naa fi lay rakka do bari waaye la nga jang jàng ci alxuraan ak taxawaay day yàgg lool wala bokk nga ciy jàng saar yu gàtt di sëgg ka siggi di ko def par ñaar rakka nga xam ne naa fi lay rakka day bari lool doonte jang ma day gàtt waaye sujjóor yi moom day bari mooy nag taxawaay bu yàgg ba ak sujjóor yu bari ya dañoo wuute lan moo ci ëpp tuyaaba mooy lan moo ci lan moo ci euh, moo ci gën daal ndax yàggal taxawaay ba gën wala baril su jur yàggan gën mu ne wa baaduhum lenn ci ñoom mooy lenn ci borom xam-xam yi faddal la gënal lañ wala nga ne wa faddal la gënal la baaduhum lenn ci ñoom saali wal baadu lenn la saali wal kull képp minhum ci ñoom mustadillun aji sakkoo tegtalu la faxusaa jàppal nee na ñenn ñi dañoo gënal yàggal taxawaay ba nga jàng jàng mu gudd taxawaay yàgg doon te rakkaay bariwut jàpp na ñoom moo ëpp tuyaaba ñenn ñi itam jàpp ne sujjóor yu bari daal rakkaay ya gàtt te sujjóor yu bari moo ëpp tuyaaba nee na ku ci nekk nag ci ñaari kuréel yooyu ñi nga xam ne ñoo gënal lii ñi nga xam ne ku ci nekk am nga tegtal yu wér yoo xam ne ca nga tegtaloo te ñaari tegtal yëpp itam xadis yonent bi sallallahu alayhi wa la mu ne fa kasratu sujudi barik sujud ya tuksiru dana baril in itaata sunu bina mooy sippikuk suñuy bàkkaar fii xabari lazi ca nettali ka nga xam ne ahaata peeg na xam-xam te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee moom la yàlla xamal lépp mu yonent wax ne sujud yu bari dari tak bakar saya bakar di obat ma saa saya segi sujur rek bakar yaa ngi wadd hadis buah hamne sauban hamne maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau moo yang yonent ko dama bangga tek tal ma jëf hamne eh, dana majarin jariñ dana ma tàbbal àjjana nee sallallahu alaihi wasallam sallam abdir dari jek jek ne ko nangai baril di sujud, daan ne ko amul benn jàmm boo xam ne dana sujjóot sujjóot dana sujjóotal yàlla benn sujjóot lu dul ne rek yàlla sippil na ko ci ay bàkkaar mooy saa yu sëggee bàkkaar yaa ngi jaar ci mbagg ya euh, di wàcc yàlla dana ko yëkkatil ay daraja sippil ko ci ay bàkkaar mu ngi ci kitaabu salaat ci Tirmisi yi euh, moo tax mu ne kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne bari sujjóot moo ëpp tuyaaba ci naafila ñoom foofu ñu sukkandiku mooy ci xadis boobu nga xam ne im euh, ibnu Talxata dama juum ne Sawbaan waaye Maxdaan ibnu Talxata moo dajeeg Sawbaan la rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di ko laaj ne ko jëf joo may tegtal yoo xam ne dana mën a tàbbal te dama mën a jëriñ Sawbaan ne ko day dénk naa la ngay bari sujjóot ndax déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi di wax ne amul benn jaam boo xam ne dana sujjóotal yàlla benn sujjóot lu dul ne yàlla sippil na ko ci ay te yëkkatikol yëkkat yëkkatikol ko ci ay daraja mu ne fakka moo tax mu ne is ngir almusalla aji julli ji wala almusalli aji julli ji xëy maala fu fi jengee li rukkoo jëm ci rukkoo aw li sujuudi wala jëm ci sujuud saa quduin muy boroom ak toroxlu wa xusooxin ak ragal yàlla tanaasara dana wisaaroo min bayni aatiqin tukkee ci diggante aw loos loxoo ñeel ko wa katifin ak mbagg sunu buxoo bakkaaram ya fawran ci lu gaaw loxoo ñeel ko neena na ki nga ne day julli dal sa yo xamantene jang na jëm ci rukoo moy sa yu seugge di rukoo wala mu seug di sujud neena ay bakaram dañuy di wisaro bayiko fu ne ci ramama di rot ci suuf moy di denc ci moom moo mu ne sa yo xamantene jang na jëm ci sujud ànd ak torox toroxlu ak ragal yalla moy jëf ji yalla rek tax da ngay gis neena na ya bayiko ko fu ne ci ci ca ci mom di wad jaar ci digënde mbagg ya ak loso loolu mooy tekki rek xaddis bi bi mu wax léegi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci day tax yàlla sippilee bàkkaar yëkkati lay daraja kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne naafila moom baril sujjóot yi moo ñoom seen sukkandikukaay mooy xaddis boobu noonu wajaa na fil xabari ca nettali ka anna afdala salaatina naka ji sunu julli alxunut gërig jaamu yàlla antu taw wala mooy ñu yàggal ko xantu tawala moo ñu guddal ko euh, dafa jiital alxunut waaye dafa bëgg a wax ne xaddis bi nga xam ne moom la yonent bi sa alayhi wa sallam wax ne afdalu salaati tuulul mooy yàggal jaamu ga te mooy yàggal naafila ba nga xam ne taxawaay day yàgg moo gën mooy daa bëgg a wax ne ñooy itam ñi nga xam ne ñooy jàpp ne yàggal taxawaay ba naafila ga yàgg moo ëpp tuyaaba ci xaddis boobu lañ sukkandiku te xaddis bu wér la boo xam ne jaabir ibnu abdullahi moo ko jëlee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci saxiixul muslim di ko fekk muy waaye ne euh, li gën daal ci suñu julli mooy ñu guddal ko mooy ñu yàggal ko ci kii naafila waaye lu ci mën a am rek ñaar yëpp lu ci waay def rek te yàlla tax lu bari tuyaaba la mooy na moo xam naafila bareel rakkaaya euh, saare gàtt taxawaaye gàtt sujóor yi bari rakkaaya bari walla boog saaree gudd taxawaaye yàgg euh, sujjóot ya bari sujjóot ya néew noonu ci ma doon ñaar yëpp am tuyaaba bu fekk yàlla rek tax kon foofu bunt bi nga xam ne moom la indi woon ngir euh, wane na yoo dundal waxtu euh, jiital ci naafila yi nga xam ne moom lañu yoonal muy sunna ak yi nga xam ne dañ koo xeemem yooyu boo ko defee ba noppi tamit wax yëpp waxtu woo xam ne dagal na naafila rek bu la neexee sañ nga ca naafila nga jublu ci rek ngir yàlla ak dundale ko sa waxtu ak sàkkoo ko tuyaaba nee na bokk na ci nga xam ne may su ko dundale waxtu ak waxtu ni mu seere ba nga xam ne ëllëg yoon xiyam rëcc du la ci fekk perte du la ci fekk kon ñu yemale foofu suñu bindub tey ba del si war ak jàmm insha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa di jégalu bu baax nag taxaw taxaw bari daa am lu ko waral rek salaamaaleykum wa rahmatullah